bonjour salaamaaleykum dal leen ak jàmm mbokk internet yi safoo seetaan Evidence TV bàyyi nag ci jàmm maa ngi ci jàmm alxamdulilah xam naa ne nag sama réegu sew gi ku nekk dina waa kii fan la nekkoon mais maa ngi fi maa ngi nii maa ngi nii seen karam tey nag dama ñëw ak yéen ci émission bu bees tàkk ak gan bu ngandee ngandee ngande non tey duma wax sax dama leen ni koy defal surprise suñu gan tey bi nag Ousmane Faye la tudd artiste comédien ñu bàyyi ko mu nuyoo salaamaaleykum Ousmane. maaleykum salaam Amira ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax di kontaane macha allah ci dalal bi ngeen ñu dalal ci Evid TV donc di nuyu monde euh, internautes yi di nuyu diaspora bi di nuyu sama waa kër di nuyu képp koo xam ne à travers émission bi yaa ngi may xàmmee maa ngi lay big up di la nuyu. mbokk ñu jël suñu suñu suñu tradition nuñ ko daan defee Ousmane. Mm. yaa ngi ci lan. maa ngi ci émission yow la kan. très bien kon boog xam nga suñ première question. Ousmane bu ñu la doon wax yow la kan ana loo ñuy tontu. waaw man la Ousmane fay artiste comédien artiste polyvalent en général voilà donc euh, dëkk bopp juddoo bopp rue 3 villa numéro donc euh, màggee fa yaroo fa. jàngee ci école bu ñu naan école Amadou Diagne Waré nekk biir bopp donc sama cycle primaire jóge fa nag macha allah topp ci njàngum waa àddina moo xam li naan dañ koy jàng chaque jour rek livre la <laughs> waaw. ba dañuy ñëwaat tuuti ci suñ na yow la kan ci sa biir waxtaan danga ñëw danga jàngee bopp maanaam fa nga juddoo jàngee fa. Euh, ku ne xam ne cursus scolaire doon ci ñëwal nga bref defal ñu benn briefing bu ndaw ci sa cursus scolaire. waaw euh, comme ni ma la ko waxee rek comme ñëpp def naa sixième ba primaire sixième ba cm de am sama entrée en am sama COP yàlla dogal tamit euh, vraiment ma amoon problème de vision. donc problème de vision boobu xaw ma tuuti tardel ci sama njàng ba mën naan bi ma demee ba quatrième ci laa arrêté parce que tellement dem naa ba mujj gi. Ah, jot nga dépassé classe góor gi. waaw waaw. Ah, romb naa CM2 bi romb naa CM2 bi. mais loolu la yàlla dogal. donc vraiment bi nga xamee yàlla def na nag ni vision bi mayatuma woon tellement que ma mën a continuer jàng bi mais terewul nag may jàng chaque jour mooy li ma la wax sànq rek may jàng parce que jàng dafa bari façon donc aar nag daal di nekk loo xam ne passion la ma sa doon ci man. ma ma jublu ci loolu nag donc bari ci ay ouverture nag macha nga taxaw tuuti ci jàng bi. Mhm. danga ñu wax léegi ne danga amoon problème de vision. Mhm. am na ñoo xamante ni duñ xam exactement lan la parce que la majeure partie suñu suñu surtout suñu société ils ont tendance à dire que xale bu nangul jàng rek dafa reew wala dafa lenn naqari xel la wala danga jàng ba ci sa biir xam ne lii du say vocation. am na leneen lu tax nga bëgg nekk leneen ndax mën nga ñu dikkal ci loolu. waaw xam nga mooy li ñu naan tradition bi ñu am Sénégal mooy boo xëyee war nga dem école. Mhm. boo wàccee école yi ba nga dem jàngi alxuraan tey noonu laa ko defee mais liñ naan euh, ku xereñ laa woon nag école waaw aayu ma woon trop trop trop trop waaye nag ñu laaru ma woon trop trop tamit waaw donc bi yàlla dogalee tamit ma def sama euh, sama CM2 école bi ma lay wax. donc euh, ku mel ni Pape cow euh, ancien international ñoo bokkoon benn classement ak moom ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii donc tey ay kilifa yu mag lañ tey ci Sénégal ñoo bokkoon benn classe. donc euh, yàlla dogal it bi ma amee sama certificat am sama entrée en sixième ci laa génne nag mais bi ma génnee yàlla dafa dogal moment boobu noonu donc comme que vision bi neexatul woon te il fallait que ma am métier. donc euh, yàlla def ma sama waajur yi dugal ma Asafin benn école bu ñu naan Asafin. vision vision c'est plutôt ak bët. waaw ci bët yi waaw. Hmm, ci bët yi problème woon benn feebar la woon waaw bu ñu naan bu ñu naan trachome. waaw trachome day nekk feebar boo xam ne day xonkal say bët say bët di xasan parfois da ngay gis xale yu bari yoo xam ne ndeysaan seen bët yi day ñuul kukk di xasan. Hmm. donc feebar boobu la woon. mu nekk feebaru ndoxu siti nag feebaru ndoxu siti lay doon. mais bu ñu ko traité donc dañuy day tane donc euh, yàlla daf tamit euh, benn docteur bi ñu naan Claude Abraham. donc hmm. moom moom euh, traité donc mu ngi woon immeuble Soxna Anta en ville donc sama turandoo daal vraiment moom it ma koy nuyu de passage jàpp ci ba tey sama bët yi ma mën ci xool voilà donc bi ma jógee nag ci opération boobu nag macha allah tamit nag ci la daal bët yi commencé macha allah ma ci gis lépp lu ma ci bëgg a gis. nee naa gisuma du ma gis de loin de loin mais lépp loo xam ne bëgg naa kaa xool moom bëgg ko gis moom dinaa ko gis. spécialement parce que tey war nga ñu ne am na yenn xale yoo xamante ni mhm. dañuy souffrir ci yenn yenn pathologie yoo xamante ni ñun parents yi maîtriser wuñu ko mhm. waaye euh, pour société bi gën cee bàyyi xel Ousmane. wax nañ sànq ci li tax yow na jànguloo mooy sa problème bët waaye bi ñu defee jàmm ba sa bët ñëwaat ana moo tax delluwaatoo jàngi waaw boobu fekk ni euh, parents yi gis nañ ni kii euh, dafa war donc ñu daal may yóbbu. école tu étais waaw waaw parce que benn moment xam nga jàng dafa am âge bu muy toll donc euh, bu la wóoree ne ni instant bi nga dem jàngi métier moo gën ngay continuer ci école bi donc nga dem jàngi métier donc bi ñu ma laajee lan nga bëgg a def. ma ci gërëm nag sama yaay ji ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te yéex a ñu nday Astou Faye nekkoon jigéen ju mën góor xam ne maay taawam te jamon juñ toll ni xale bu ci amul métier ñàkk nga. Mm-hmm. donc moment boobu it mënuma loo bëgg a def ma ne ko électricité laa bëgg a def donc ma dem def euh, ma def asafin voilà dem def fa sama première année def sama deuxième année mais yeggalewu ma ko waaw lu tax yeggalewu ko mooy. Euh, dafa am benn bés ñu dem ci atelier bi di def benn euh, xam nga booy def électricité parfois da nga koy jàng théorie mais parfois da nga koy jàng pratique. donc bi ñu demee atelier di ko def pratique suñu benn euh, camarade daal di jël fil yi ko fekk juste am ko branché ci ginnaaw donc mu maasee ko noo xam ne def ko noo xam ne bis boobu laa gedd courant bàyyi courant ba fu mu ne boo mën ne woon kaay sampal ma prise bii du ma ko ñemee. c'est vrai que euh, en parlant ça fait wax mhm. dëgg neex yàlla mais nag métier la boo xamante ni ñuy jaajëfal ñi nga xam ne suñu borom taw feexal nañ ñoom ñooy techniciens yi. Mhm. Hmm, di leen di leen di leen wax waaw góor. ndax nag li ñuy liggéey lu xaw a dangereux la mhm. sincèrement. Euh, mën nañ ñëwaat tuuti ci ci ci différentes choses yi nga def mooy maanaam da nga bàyyi jàng suñu borom taw feexal la sa yaay jàpp la yóbbu la nga wax ne électricien nga bëgg. ba nga ko defee am ci ay gàllankoor lu ko sa famille dundee waaw donc dund nañ ko ci bu ñu sañoon ma jàng bu ñu sañoon tey jii ni loolu ma yeggale ko mais traumatisme bi ma ci amoon tax na ma ragal courant bu mujj gi ma fa sax bàyyi mais moment boobu comme da xale yu Dakar yëpp rek waaw donc gis naa ni tamit euh, bëggoon naa théâtre ba pare teg ci ma doon sentir nii man yaa quelque chose am na lu moo xam ne mi ngi may animé parce que bi may def sama cycle primaire comme ni ma la ko waxee dafa amoon ay suñuy mag yu baax ñoo xam ne ñu mel ñoom Jean Paul Mendy ñoom Tomaane Dianka ñoom Croix Rouge lañu nekkoon. Mhm. te xam nga jamono Croix Rouge dañ daan ñëw ci école yi di jël xale yi. Mhm. di leen former donc ma dem adhéré Croix Rouge daal di fay jaar de nekk aspirant ci début bi dem ba mujj gi. nekk responsable au niveau de la Croix-Rouge mujj gi may former euh, ay ay ay agent de ay agent yoo yu Croix-Rouge euh, foofu nag la ma théâtre duggee mhm. parce que bu ma jamono ji may nekk Croix-Rouge comme chaque mercredi dañ daan dajee ak chaque samedi dañ daan dajee ci école yi ñu ñuy jàngal devise Croix-Rouge du ñuy jàngal secourisme les premiers secours du ñu du ñu toppatoo tamit ci école bi mais jamono jooju tamit bu ma mësaan a wàcc am na beneen école bu ma daan accueillir muy waaw Moustarchidine wala Moustarchidaat mhm. ñoom daan nañu ñoom euh, amoon ay mercredi yoo xam ne dañ ko daan def ci école yi euh, di ko def ci quartier bu nekk donc foofu daal laa commencé di def théâtre donc théâtre am nekkoon euh, benn benn benn benn benn benn activité boo xam ne ni dama ci daan gis sama bopp teg ci dama ci daan exprimer wu waaw. daa dem ba gis ci sa bopp waaw dama dem ba gis ci sama bopp mujj gi théâtre dugguma mujj gi euh, la nga xam ne ni toujours moom la ñu daan yeddee dañ ko daan def ay pièces de théâtre ñun ñu koy ñu koy dund lu mel ni su ko dem dem benn way bu ñu naan su ko dem su ko dem dem dafa nag jigéen joo xam ne nii boo daan dem day tàggoo donc ñàkk tàggoo ay xaritam ñëw ne ko su ko kaa ñu ànd dem géej ñàkk a tàggu ay waajuram moo war a bi mu demee mu des ci géej gi donc mu nekk nag ay chanson pédagogique yoo xam ne nii ci théâtre lañ ñu ko jaarale jàngal ñu ko wane ni xale bu jógee di dem war na tàggu ay woy waajuram ngir buñ koy seet xam fañ koy seeti jee voilà. su ma la déggee bañ noppee ci électricité sun borom daf la taw feexal yow tamit nga nga gisaat sa bopp ci théâtre ba mu ci duggee ana nu demee. waaw ma ci duggee sant yàlla. waaw sant yàlla parce que théâtre tax na ma xam sama bopp. Mm-hmm. waaw théâtre tax na ma am ouverture tey ci àddina bi waaw. théâtre tax na tamit euh, li nga xam ne ni fa laa jaar yëpp ci sama ci sama ci wàllu art. Mm-hmm. mu naan théâtre moo ko déclenché. waaw parce que yàlla dogal na ni xam nga sànq maa la koy wax ne la je suis secouriste à la Croix-Rouge sénégalaise. Ah waaw je suis waaw parce que comme ko nee naa la dama jaar Croix-Rouge. am na benn moment nag dañoo def formation secourisme donc ma diplômé wu en 96 may nuyu macha allah sama collègue yi nga xam ne nii war nañ ma xàmmee euh, ñu nekk département de Dakar. mais Ousmane Ousmane Ousmane yow on on benn euh, benn polyvalence. waaw. waaw je je su ma waxtaan ak yow damay ressentir benn polyvalence. Euh, ceci dit que yow la kan bi tu pas continué maanaam yeggale woo euh, question bi. Mm-hmm. je pense dama lay dama lay laajaat affaire bi de mais Ousmane yow la kan. mais baa ma ñëwaat man la Ousmane Faye artiste polyvalent fa laa mën a wax parce que nee naa man je suis danseur. je ah. euh, suis danseur. def naa danse mel ni danse def naa ballet def naa danse contemporain. def mm-hmm. naa danse classique xam nga ba pare teg ci. instrumentiste tamit parce que bongo barina na tey ñu koy def ci Sénégal ñu bari ñoo xam ne maa leen ko jàngal. bongo mel ni mel ni mi ñu bari tey ya nga koy def naan maa moom bongo maa moom bongo mais Ouzin Mbaye ak ña ca topp ak ñu ci bari xam nañ bongo fan la ne buñ ci jógee euh, damay artiste boo xam ne mun naan tey ñu bari jaar nañ ci aar ci man lañ jaar dem. Hmm. waaw lii dafa faaw faaw faaw régie bi xam ko. donc faaw ñu xam ne bongo tamit faaw am nañ ko fi mu ne. voilà waaw ah. man nee naa je suis danseur je suis de feu may taal safara. man mi yu dragon yi damay taal safara parce que li ma may loolu mooy bale bi ma doon def. parce que xam nga dama nee naa la dama jaar ci benn troupe bu ñu naan doole mbooloo waaw parce que bi ma bàyyee jàng euh, dafa am sunu benn mag ju baax bu tudd Ëmër Ndiaye Sow Diallo euh, moom it nekkoon suñu moniteur yoroon ñu centre Amadou Malick Gueye bi nekk bopp donc jëloon fa ay xale yu doon def couture di leen former ci théâtre donc comme que ñun tamit foofu jege woon nañ te dañ daan dem di basket ak yu demee noonu te man gis naa ni suñu kër ñëpp ay basketteurs lañ mais man du yow ci basket. Mhm. donc ma mujj nag dem di seetaani théâtre boobu. kooku nag bokk na ci ki ñu jubbanti tey tey ji bu ñu naanul sàngara toxuñu yàmbaa sàccuñu genzuñu taxawaaluwuñu grâce à Ëmb Ndiaye Sow Diallo waaw parce que dafa nekkoon nit boo xam ne nii moment boobu bi nga xam ne tey ji mënoon nañu bàyyi ñu nekk suñu bopp wala ñu dem defi leneen daf ñu daan récupérer yóbbu ñu troupe ba forme ñu jox ñu li nga xam ne mooy aar bu ñu ci jógee dem bu ñu paree répétition daf ñuy yóbbu këram. Mm-hmm. teg loo ñu ataaya ñu ataaya bu ñu paree lu mu néew néew néew dina yëkkati benn téeméeram wala benn ñaar téeméeram nañu reer leen nekkoon suñu mag ju baax ma koy nuyu de passage moom tey ji mi ngi France euh, mais mën naa ni euh, coloré googu yàqu ko waaw mm-hmm. te tey jii mi ngi ñuy gën a jege waaw man tey ji nee naa bu ñu demee tey jii ba. gën a mën a jàkkaarloog àddina bi gën a mën a téewaat suñu responsabilité yàlla jàll Amady Souleymane waaw ma koy nuyu de passage moom it vraiment nekk na ku koo xam ne bu ñu nee tey Ousmane Faye kii la euh, yow la kan yaakaar naa bu ñu doonee bu ñu bu ñu doonee tey li ñu doon yàlla ginnaaw yàlla ak suñuy wayjur moom la. loolu ma ci ma ci joxe hommage ci mag ñëpp képp koo xam ne da nekk ci koñ te mën na jël xale yi encadré leen ba du ñu defi leneen loolu man pour man ma sañoon seen àddina bi nañ ci roy kilifa gu mel noonu. xam naa du ñàkk après ñu waxtaanee. plus euh, euh, surtout loolu parce que parce que tey il est de voir mag yi nga xam ne dañuy rassembler xale yi. di leen jéem a dimbali afin que parce que am na ñoo xamante ni bonu ah. Mm-hmm. dañoo dañoo soxla juste ku leen euh, ku leen. diriger ci benn ku leen waaw ku leen encadré diriger leen ci benn benn yoon boo xamante ni da leen ni day jàpp seen lox ba pare ne leen jaar la ñu dem. parce que leer na leen naññi ne loolu la ñu bëgg. tey buñ ci buñ ci réussir dinañ xamoo dinañ gën a xam ne ñii nii bañuñ leen. mais juste que da leen di dimbale. et pour ça dañuy ñëw tuuti ci wàllum milieu bi. parce que tey da nga ne aar moo la def li nga doon donc sa polyvalence lépp ci biir aar la. waaw. mais tey nan nga dundee aar lan moo tax tey gisuñu maanaam duñ ne yow ci boppam suñ la gisee mën nañ gis aar parce que déjà tenue bi démarche beeg ni ngay doxalee ak ni ngay ni ngay revendiquer aar ci yow sa relation yow ak aar difficulté comme bànneex bëggoon naa nga ñëwal. waaw euh, nee sànq maa la koy bëgg a wax nee naa la je suis moniteur de collectivité éducative. Mm-hmm. je suis diplômé depuis 2004. te xam nga li ñu naan un moniteur ki nga xam ne dañ ko former pour mu former ay xale. Mm-hmm. donc ma nekk artiste boo xam ne ci biir théâtre bi nga xam ne moom laa daan def au niveau des écoles parce que daan naa dem ci école yi di jouer théâtre xale yi di fay billet di ma seetaan. Mm-hmm. parce que dama am ay pièces de théâtre yoo xam ne def naa ko à la télévision nationale. benn pièce lu mel ni fiir gi lu mel ni pension bi ak njàqare trois épisodes ci RTS jamono ji nga xam ne ñi ngi def captation yi. Mhm. donc euh, yàlla dogal euh, ci pièce yooyu ma àndoon ceeg benn troupe bu ñu naan penc mi voilà donc euh, théâtre boobu nga xamante tey jii nii moom laa doon def laa dem ba gis ni xale yi am na lu ñu soxla te ñun les artistes. Mhm. dañu war dem. ci art bi ñuy def ñu boole ci la pédagogie maanaam xam nan la ñuy mën a véhiculer message ba xale bi mën ko dégg waaw parce que di nga jël message jàllale ko mag rek ñoo koy dégg mais am na noo koy dulier am na noo noo noo koy waxee li naan wax dañ koy woddu am na noo koy defaree je pense que ni xale yi dinañ ci gis seen bopp parce que dañoo nekk ci benn àddina boo xam ne yàqu na donc ak internet bi gis nga ni chaque jour jikko yi valeurs yi ñu ngi dégradé wu te lu ci ëpp ñu woon di dégg ay kàddu ci xale wala ay melokaan ci xale te xam ne xale day roy. Mm-hmm. te xale ku muy roy papaam wala yaayam ndax ñoom ñooy ay royukaayam mais dañuy dem ba benn moment boo xam ne nii xale yi ci seen bopp amatuñu loolu. Mm-hmm. amatuñ ku leen yedd amatuñu ku leen defar donc ma gis ni man en tant que artiste am naa lu ma manqué te li ma manqué il faut ma dem former di waat donc ci laa dem def sama formation moniteur am sama théorie am sama pratique def sama. def nag pas mal de colonies de vacances donc. Euh, ah foofu waaw def naa pas mal de colonies Gambie ànd naag ministère des finances ànd naag euh, le ministère des Sénégal de l'extérieur donc bari na daal yoo xam ne ànd naa ak ñoom encadré ay xale ba tey jii nii nii nii damay dox sax daje xale mu nekk kilifa yor otoom sax ne ma tonton Ousmane est que xàmmee nga ma donc bari na tey ñu ma formé à travers. théâtre kat. jóge ba mujj ci nekk moniteur. de collectivité ba noppi di di gérer ay xale. parce que aussi c'est c'est important ñu taxaw foofu. bu de nos jours théâtre kat yi pour ñoom métier bi mooy dem wuti ci production. Mm-hmm. wala su doxulee ñu dawul làqdu ji ci leneen. Mm-hmm. mais tey yaa ngi aspire afin que ñi nga xam ne tey jii gisuñu seen bopp ci art. Mm-hmm. ñu mën a dimbale seen seen seen communauté ci beneen manière mhm. mooy lan dem yokkiwaat xam-xam dem yokkiwaat li ñuy jàngee ba noppi ñëw dimbale ko ci gone tey ah mais franchement je suis ébahi franchement et pour ça dañuy ñëwaat mais cette fois si damaa bëgg wax dëgg neex yàlla nga wax ma ana sa famille nan la ñu dundee sa différent parcours yi waaw parce que ñàkk aussi euh, tiraillement ci biir famille vu tout euh, yoon bi nga def yëpp wax dëgg na yàlla du ñàkk tiraillement ci biir famille tey ban doole nga am wala boog lan moo la dimbali ba nga mën a def sa parcours yëpp ak lan nga dund lu spécial ak sa famille. waaw donc sant yàlla nag macha allah man moom aar nee naa sama famille dañ ma ko nangul. Mhm. sama yaay nangul ma ko. parce man sama papa dafa teel a gaañu seet jaan fay yàlla ko yàlla yërëm te yéex ñu ak képp ku mu fa fekk euh, mais man sama yaay dafa ma nanguloon aar parce que dama ne man sama kër ndeysaan sama yaay euh, dafa nekkoon jigéen ju xawoon bari kees te sama famille yëpp noonu lañ mel man rek maa ci mel ni ma mel te nee naa ni ma mel defuma ko sama bopp amaa na yàlla moom ma tànn ne kii artiste lay doon waaw parce que xam dañ ne l'artiste c'est celui qui est entre l'homme et le chagrin maanaam ki nekk ci diggante tiis ak nit. Mm-hmm. tiis ak yow ma taxaw ca digg ba. waaw fexe bu doo tiis fexe bu doo stressé waaw man dama nekk nit boo xam ne nii fépp fu ma sa toog rek macha allah nit ñi dañu ne ci jàmm damay romb ay xale yu xuloo sax ma taxaw génne sama xaalis neexal leen ba juboole leen waaw artiste mooy ki nga xam ne parce que dañ ne l'art c'est le métier mais l'artiste c'est la personne. Mm-hmm. les métiers de l'art mooy théâtre bi ñuy def danse bi ñuy def leneen ak leneen yëpp ay métiers la ci art. mais artiste xol la l'artiste c'est la foi. nga dox gis xeer bu wóor ni xeer day gaañ nit nga yëkkati ko déplacé ko gis ni mag a ngi jéggi tali bi te amul doole wala peut-être amul bët nga dem jàppale ko fexe ba mu jéggi. romb kër gis ni añuñu nga génn ci sa xaalis fexe ba participer. dox yor sa 2000 dox ci marché ba gis jigéen juy dem te xamoo ni sax amaana am na lu mu duggee nga yëkkati ko jox yàlla rek tax. donc man noonu laa jàppee aar aar dama koy pour man dama ci war a servir nit ñi. Mm-hmm. dama ci war a servir nit ñi. à travers jaamu nga ko jàppee man dama ciy jaamu yàlla. Mm-hmm. moo tax ma ne aar bii ku ko jàppee aar ku ko jàppee saayir day saayir su baatin. Mm-hmm. waaw parce que mag ñu baax ñi ndaysaan ba ci sax ma Abdou Aziz ndaysaan daan nañ dégg mu naan bu ko yàlla defaatoon ndaw dina def théâtre ngir mën a jàllale message xale yëpp gën mën ko dégg parce que dafay benn moyen boo xam ne donc pour que nga mën ci yee nit mbala nga sensibiliser ci nit dafay am solo. dama am sa benn mbokk. Hmm. bu ma mës ne. ci yow la déggee ne aar du fay. waaw aar du fay aar du fay dëgg la aar du fay mais aar day fay. Hmm. waaw lu tax ma ne aar du fay parce Sénégal li ñu xam la dañ amuñu industrie culturelle maanaam industrie culturelle bi dañ ci dawul mm-hmm. defuñu la promotion des artistes wala ba artiste génnee ñu war ko mën encadrer utal ko yoon amuñu loolu tey dangay xool yenn dëkk yu bari lu mel ni Nigéria wala peut-être lu mel ni yenn dëkk yu mag ci cinéma tey da ngay gis ni un artiste day am léppam du namm dara parce que dañ ko ko préparer la mu am des maisons de production di mën di fay artiste seen àq mais bu fekkee ne tey jii nii nii da nga bëgg a ñëw woo benn artiste mu ñëw nga ne ko voilà séquence bii laa bëgg nga defal ma ko 10 000 francs yi laa am loolu rek la ci am looloo fi ne. j'ai pas c'est-à-dire da ñëw euh, euh, liñ la cachet bi ngay jot du. parce que 10 mille francs ci koo xamante ni dafa war a dafa bëgg aar war a jóge Kër Massar war a lekk naan tourner ak ni mu méttee 10 000 francs c'est sûr que bu ci passé. wut ci juste pain wala dara c'est sûr que du ci du ci jariñ dara donc on ouais. peut en que ne artistes yi la majeure partie ci ñu ñi ñi ñi ñu so li sooxee euh, milieu artistique bi loolu ci la bokk manque de moyens hmm. exploitation bi moo metti en général ñi nga xam ne ñooy yëngu tey ci théâtre tey wala ñooy yëngu tey ci cinéma tey ñu ci bari du seen domaine mais gis nañ ni industrie boo gaaw nga am xaalis la parce que sponsor yaa ngi fii ak yu demee noonu. dañuy jël benn 4 million benn 5 million bëgg ci tournée bëgg ci lekk bëgg ci naan bëgg ci paas. artistes yi ñun leen noo bu film bi paree après dinañ leen jox lii wala bu fekkee ni bon affaire sponsor yi ñëw nañ dinañ leen yokk lii ci yaakaar boobu la artistes yëpp di daw du ñu jël artiste signal ko un contrat bu dee film bi da ciy tourné benn séquence sax ñu xam ne contrat bi lii la. mais il préfère ñu la tourner loo ci ay séquences di la ko fay. ah oui bu film bi jeexee nag tu te retrouves avec zéro franc foo romb ñu ne yaa nga ne te dërëm yoroo ko ba pare teg ci xam nga artistes yi dañu war di cotiser dañu di cotiser je pense que ni bu fekkee ni tey jii nii yaa ngi liggéey ci dara te doo denc. su mhm. boo màggatee boo demee ci kees gi doo fa fekk dara. Mhm. kon baax na ma koy conseil artistes yi tamit ñuy dem di cotiser BSDA. Mhm. ut seen carte BSDA. artiste da ngay am carte BSDA ñu reconnaître en tant que un artiste ngay dem di jouer spectacle ñu la ciy fay ngay dem di cotiser BSDA loolooy tax suba boo feebaree nga ñu mën la taxaw. Mhm. mais bu fekkee tamit dem nga ba nekk mag it nga am ne wóor ni la nga fa bàyyi woon yaa ko moom. Mhm. mais artiste ci bari tey jii dañuy dox ci amuñu kayit dañuy dox ci bëgg naa aar rek naa dem defi ji ko mais nañu xam ni ni métier la. métier la parce que ci biir théâtre da xool ni caméra ngi fa ingénieur de son ngi fa scripteur nga fa keneen ak keneen nga fa te yëpp ay métier la yu xam ne ni nit da koy jàng kon tamit acteur bi ci boppam tamit jeu d'acteur da koy jàng comprends nga tey ji bu ñu ne moon tey ji tey demal nga nekk benn mécanicien mais bu damay génn ci Ousmane Faye dugg ci biir mécanicien ba boo gisee ne ëpp mm-hmm. mais tey jii nii jàllatu leen ko. Mm-hmm. buñ mënee tey jii ni ñu ne non Ousmane Faye c'est un artiste comédien xam nañ ko xam nañ ne mën na métier te boo ko joxee rôle da koy def mais li muy laaj dafa cher. mais Ousmane ñu taxaw foofu tuuti parce que ni ma la déggee nii dafa mel ni pour que nga doon artiste il va falloir que nga jaar ci yenn yenn yenn jàng maanaam nga jàng lu bëri da ngay jàng ci dunia bu pare maanaam ci monde bi jàng aussi loo xamante ni na la permettre ñu reconnaître yow mi artiste nga en plus. su ma la déggee dafa mel ni artiste dafa am dafa am parce que sincèrement euh, su ma waxee dëgg rek man li nga may wax nii maa ngi koy door xam maa ngi pour man quand tu dois exercer mon mon théâtre wala dara il va falloir que dégg naa ay duuta sekk yooyu donc mën nga dem foofu soo ko soo amee hors de soi soo demee ñu jàngal la lu ndaw boo paree nga ñëw donc kon tey yéen ñu tuddee artiste ak nii série sénégalaise yi di doxee parce que lépp ci monde cinéma la hmm. c'est de l'art est-ce que pour mën nañoo wax ne lii euh, genre lii nii art la maanaam xaw ma nan laa ko mën a waxee exactement sax comprendre naa waaw hmm. ñoom ñi ci boppam ñoom ñiy def série est-ce que c'est des artistes waaw bon mooy li ma la wax xam nga li naan at art ñi ko jàngoon démb tey liggéeyuñ ko ñi ko jàngoon démb waroon ci def carrière tey liggéeyuñ ko parce que mooy li ma wax sànq. te bizarrement yéen ñëpp a bay jaaw gis nga te pourtant boo gisee suñuy image euh, yàggul dara rek. mais non je blague non mais c'est boo gisee suñuy image yàggul dara da nga gis ñu nekk ay booy yu ndaw. <laughs> c'est vrai mais nag quand même dootuñu ay xale ah parce que dem ba jàpp 48 ans dootoo xale. mais non parce que quand tu prends les acteurs. Mm. sincèrement yu nekk. Europe. Mm-hmm. mais à 68 ans la seen seen i ah. ah, mais béjjaaw kon léegi cent la de. <laughs> mais bon il faut il faut aussi décon décontracter la léegi saafara da cay rax de. baadu ah waaw. <laughs> kon at boo boo diwul dañ lay rey dañ lay catu de da am ay taab yu ruqe yoo xam ne doo ko nettali fenn. siw kii non du ma nangu rek ah, sama ah, émission siw kii <laughs> xorom si maa ko yore waaw fii benn artiste di ñëw fii di ma yàqal sama émission ñu naan la ñu may kii téléspectateurs yi di ma bàyyi fii ah, naan non non Ousmane laa na a toppi nañu xam ne am nga gan tey de du ma ko nangu du ma ko nangu xam ne am nga gan mhm. non loolu moom seetlu naa ko gis nga bi ma ñëwee dèjà dèjà bi ma la gisee rek laa xam ne bañ na ma mhm. art artiste la. waaw du yomb. laareel du yomb waaye garaawul man mii. mais est ce que xam nga est ce que xam nga benn affaire. Uh-huh. man maay l' artiste comédien ci Sénégal boo xam ne boo ma bëggee ma nekk jeune mais bu ma bëggee ma nekk bo ma nekk paa. nga ma. waaw waaw. bu ma watu c' est un don ou woon nii rek bu ma dindi woon sikkim bu weex bi nii watu nel rek bu ma tax da nga naan kii bu ndaw la. luñ la jàngal la ba pare teg ci mag ci is ci bopp la màgget ci bopp la. Mm-hmm. waaw. man pour man ba léegi dama jeune pour man ba léegi 18 laa am waaw ba ci terrain bu ñu ko séqee ay xale dama maa leen di gën a taxaw mm-hmm. waaw moo tax ma ne affaire bi ci bopp la mm-hmm. comprendre nga voilà donc pour waxaat la revenir sànq ci théâtre bi nga doon wax mm-hmm. euh, chômage bi nga xam ne tey euh, daf ci am ñu bari ñoo xam ne dañoo dugg ci théâtre moomuñu ko waaw parce que bu ñu demee ba tey jii nii mannequin yi dugg ci théâtre duñ ne nag bokkuñu ci ndax mënoo cee génnee comprendre nga mais def ci am ñoo xam ne métier bi ñoom moom la jàng. Mm-hmm. ñii dañ ko jàng école mais ñii dañ ko jàng ci ay troupe. Mm-hmm. ñenn ñi dem jàng ji ko Blaise Senghor. Mm-hmm. parce que Blaise Senghor day école bu rëy centre culturel Blaise Senghor suñuy mag suñuy xarit ñoom Kader Pisinimigo ay kilifa yu baax yu baax yoo xam ne ba ñu jàngee école des beaux arts dañoo ñëw niveau de Blaise Senghor di fa former xale yi. ARCO association des artistes comédiens du théâtre sénégalais tey jii nii bu ñu ko taxawalee ba mu wër Sénégal. Mhm. man bokk naa ci premier ARCO bi nga xam ne tegal nañ teg nañ ko Dakar. Mhm. yàlla def it macha allah ñu nekkoon fa ak sunuy papa ñoom Mar Jaafar cal cal ñoom kilifa yu bari. Mhm. ndeysaan ñu ci bari wàññeeku ni sax yal na leen yàlla yërëm. Euh, ARCO yi tamit nekkoon fu ñu daan formé artistes yi. mais bi ñu demee nag ba affaire xat. ci la arco yi nag daal di yaatu parce que nit ñi dañ daan jóge ba Tëngéej ñii di jóge ba waaye paas bi metti ñu ne nag léegi nañu yaatal arco yi. Mhm. donc ko yaatal Pikine am Géejawaay am région yëpp am parce que dañ daan daje ci benn festival bu ñu naan festival du rire. festival du rire parce que ça nous a ñu ko daan defee vraiment bercé ñu ko yëpp wax dëgg Kaolack lañ ko daan defee donc di ci gërëm tamit euh, mag ju baax Gédel Mbodj nekkoon kilifa ku baax nekk biir Kaolack bëgg aar bëgg culture daan ne ah lu mel nii de gënul jekk fenn fudul sama dëkk. Mhm. donc moom bu ñu mësaan ñëw au niveau de moo ñu daan dalal jëlal ñu ay hôtel. Mhm. parce que trois jours lañ fa daan nekk ba bu ñuy ñibbi mooy yëkkati ay paas jox ñu. kon moom it ne saan yàlla na ko yàlla yërëm te yéex a ñu. moo wàññeeku na jamono yële passé gëdel. Mhm. donc pour wax la ni la théâtre sénégalais am bu tollee fenn fi tey jii ñun yàlla ak ñun la. tey bari na ay acteurs yooyu gis ci série yi lu mel ni tey ñoom Billy yi ni Boy yi ñoom Babacar Waal yi mhm. ñoom ñëpp ci sama loxo bii la ñu jaar ndax bi ñu ñëwee arko ñoom xaarim ñoom ñëpp bi ñu ñëwee sama loxo lañ jaar ñoom daaro ñoom tan bombe ñooñu ñëpp bi ñu ñëwee arko fa lañ ma fekk mhm. voilà mhm. donc pour parce que parce que Ousmane euh, on a on a constaté aussi que ne euh, ñoom euh, on a senti que théâtre la reprendre mais tey monde bi je pense que dafa changer bu baax Euh, donc à qui la faute ndax seen seen moment yéen moo révolu wala dañoo joxul rôle yi ñi ko war a yore. waaw donc joxuñu benn rôle yi ñu ko war a yore am na ci ñoo xam ne ñi ngi vraiment ñi ngi ñi ngi def seen rôle. Mhm. waaw am na ci ñoo xam ne mosuñu def théâtre te ci génération bii lañ. Mhm. mais macha allah. soo leen seetaanee boo leen mhm. xam ne ñii li ñuy def mais nag ñooñu boo gëstoo tuuti rek gëstu ji nañ ko. wala jege nañ. ku def théâtre mu teg leen ci yoon comprendre nga euh, deuxièmement mooy théâtre léegi bi dafa fekk mu mu ànd ak jamono mhm. caméra yi gën a leer jamono ji ñuy tourner ñun dañ daan tourner benn caméra lañ daan tourner séquence bu ñu la ko tourner léegi da ngay pare wax ko fii waxaat ko fee waxaat ko ci ang quatre angles yëpp donc tourner dafa metti woon ba ñun ñoo daan jàppale caméraman yi mais tey jii nii caméra yi ñooy presque ñooy jouer film bi dëgg la comprends nga deuxièmement mooy euh, tey jii fii fi caméra toll ak fi image toll dafa am solo dafa indi benn révolution bu mag benn ñaareel ba euh, cinéma bi euh, tey jii théâtre bi tamit côté écriture mhm. parce tey ñun bi ñuy jàngal théâtre théâtre bu yeetewul rek mhm. li ma naan xel mu xelelewul yeetewul du jariñ borom nit ki bu fekkee na sa théâtre bi ngay def yeete woo ci sensibiliser woo ci ngir lu baax rek pour man la ngay def baaxul ñun noonu lañ ñu jàngalee théâtre ba dañ daan am yu ñuy wax ak yu rus a def. taxaw ci biir théâtre di saaga. Mm-hmm. rafetul ñun dañ ko daan moytu. mais tey jii nii da nga gis ni fréquent na trop pour ñun tey jamono ji at tey boo saagawul rek pour yow nekkoo ci buzz bi tey saagakat yi sax lañ gën a respecté. ñoom lañ gën a def ay que ay acteur que ñi nga xam ne ni dañ ko jàng parce que boo ko jàngee xam ko doo ci am am na yu bari yoo ciy moytu comprendre nga jël ñun suñuy jamono doo tourner théâtre di tëdd ak jigéen di sàngandoo ak moom suñuy jigéen doo jékki-jékki gis écran ñu lay wan pooj jékki-jékki serviette wadd est-ce que. comprends nga yu baree baree baree bari tey ñun ñu koy wan. ak di ñu wan sax beneen vie maanaam sexualité beeg nudité bi nga xam ne dañ ko dañ ko boole ci ci ci. lu ñu tey dañ ko dañ ko feeñal. waaw c'est vrai nga ba pare teg ci may may may dànkaafu nag comédiens yi koy def. Mhm. mooy kilifa yi nga xam ne lu mel ni imaam. Mhm. yu ñuy jël di ko théâtre. Mhm. comprends nga bëgg wax maanaam ñooñu nañ wax. nañ ñu ña mënuñu ñàkk wax ci ñoom. wala mënuñu ñàkk roy ci ñoom mais nañ ñu wan nu ñuy jàppoo nañ ñuy wan nit nooy maanoo nañ ñu ci ñoom lu positif. mais pas ñuy tegaat ci ñoom luy wàcce seen maqaam ndax imaam dafa nekk lu foor nag. du dëgg ci ñun. ba ci sax beneen diine bi kilifa kilifa la am na ci yoo xam ne moom je pense que nii at comédiens yi nañu seet lu ñu mën a jouer mais loolu nañ ko moytu. parce que parfois nga seetaan ci ñu wax ci ñu def ci imam loo xam ne wala ñu def ci kilifa loo xam ne rafetul ci gis-gis waaye rafetul ci dégg-dégg. Mhm. Ousmane ñu. Mhm. on va poser une question un peu personnelle. Mhm. Euh, tu as parlé de cursus euh, et d'une personne que je pense importante. naka nga dundee sa perte yaay. metti. yaakaaroon naa ni àddina bi day daanu sama kaw ah. waaw parce que xam nga sama yaay. nekkoon na jigéen joo xam ma sama papa bi may am sept ans la wàññeeku. ma miin ko bëgg ko fu may dem ñuy ànd may fàttaliku mu daan matt sama nopp di ma léebal ñuy waxtaan ba bi muy wàññeeku maa ngi taxaw waxtaan ak man. Mm-hmm. Amira man sama papa dafa ma bind lettre wax ma nan laay dundee ak sama yaay man. bilaay ay xale waaw bi ma demee parce que dama ko takkoon mais bi muy gaañu bind na lettre joxe ko am na âge boo xam bi ma ci tollee sama yaay jox na ma lettre boobu te la ma ca liir xam nga mooy lan fonkal sa yaay sama yaay nag ndey seen fay ndeysaan nekkoon jigéen ju mën góor téye ñu jàngal ñu yar ñu mhm. ba bëggewuñu jàngal ñu yar ñu ba fuuyu ñu jàngal ñu yar ñu ba ñu xam sunu bopp fan la la fekkoon Euh, nee naa ma sama waaye sama yaay bi muy wàññeeku euh, damaa mujj sax appartement bi ma dëkkoon dama ko mujj bàyyi jël ak sama jabar ak sama yëpp ñëw dëkk ak moom. boobu fekkul mu wàññeeku. boobu fekkul mu wàññeeku boobu mi ngi fekk mu feebar. yàlla dogal jamono jooju aar waxul dëgg li ma ne aar waxul dëgg mooy maanaam. fayul fayul ba tax ma mën ci dimbali sama waajur dama mujj dem di defi sécurité. en tant que artiste comédien ñu xam bu baax ba pare ma nekk un grand politicien mu nekk koo xam ne maître de cérémonie damay taxaw téye micro central ci digg meeting sol sama grand boobu toj ko luñ ma ca fay ci xaalis sama yaay laa koy ñu may soxla parce que en tant que artiste communicateur laa géwél laa tamit mais. Mm-hmm. dañ dañ may soxla ci yenn meeting yi dañ may soxla ci yenn programme yi ma dem moo may changer casquette. mën naa nekk fii lii nii mais boo ñëwaatee demee beneen koñ ba ma fekkee fekk gis may def leneen parfois bu ma nit woowee jox ma fay ma ne ma sama programme dama bëgg nga téel ma sama micro central bu damay ñëw bu laajee costume ma def costume mais bu laajee grand boubou ma def grand mhm. ma paree la ma ci am ma jox ko sama mère mais jamono yooyu maa ngi def sécurité ñu may fay cinquante mille francs cinquante mille francs lan la mën mais dinaa ci jàppale sama mère jox ci sama soxna. li ci des ma taqale ci pour fay sama néeg parce que bu fekkee ni tey jii nii nii da nga nekk ci aar. Mm-hmm. aar fayagul nga bëgg ko jàpp ci dugg ci bureau jàmbur yi ku ne nga ñaan ko bu yàggee ñu jéppi la. ñu ma dem di liggéey sécurité ñi may fay cinquante mille francs yu moom moom ñaxal ko sama bopp moo ma gënal ma génn dem di ñaan kenn mbaa may taxaw kenn la sama problème ndax fii koo ci wax sa problème suba mu nettali la ko. Mm-hmm. wala mu ne man de sonn naa ci joxe bi. artistes yu bari jéppi nañ leen tey ndax amuñu métier comprend nga wala bu ñu toggee ci yenn situation yi gëmuñu lu dul dem seeti nit ñi seen bureau yeeg taxawaaloo ñaanaatu. man euh, loolu laa doon bañ. manque de moyen moo gënoon a. voilà moo taxoon vraiment gënoon a sonal ci sa feebaru yaay. moo ma yóbbu ci loolu may jàpp ci ordonnance bi di ko jege di ànd ak moom di doxantu ji ak noonu ma dëkk woon moom ba bis bi muy gaañu ci taxi bi sama kaw la gaañoo tëdd na sama kaw. te jour boobu noonu laa wàcc hôpital principal boobu maa ngi liggéey psychiatrie takk samay jeu de lumière ba pare jour 24 décembre ne xaama daw sama kër dem passé décembre beeg sama yaay. mais jour boobu noonu sama yaay daf ñu daan defar ay flan benn gâteau bu neex bu mu daan defar. Mm-hmm. mais jour bi bu ma ñëwee gis ko mu tëdd defarul flan si jour 24 décembre jour loolu rek daf ma marqué. mu jaaxal ñu lool ñu yóbbu hôpital jaawante ci hôpital yi ba nit ñëwee hôpital Fann ñu ne ñu ah. kii ngeen indi tey indiwul bakken jour boobu noonu dafa mel ni àddina bi ma bëggoon daanu sama kaw parce que ku gisul sa papa bi mu gaañoo à sept nga am sa yaay nga dund ak moom ba am quarante et quelque je pense que ni kooku bu demee su lu bari dem na. sa àdduna dem na. amoon naa sama benn sœur bu tudd Aïssatou Faye Assou Faye moo topp ci man kooku dafa accidenté moom ak jëkkëram ak rakku jëkkëram. ak jabaram ak doomam six personnes ci benn oto ku la woo téléphone na la maa ngi ñëw léegi c'est-à-dire kooku sax moo ma njëkk moo moom ma njëkk yëngal parce que ñoo bokk ndey ak baay parce que suñu papa teel a gaañ mu ne woon sama sœur ne woon sama yaay kooku bi mu gaañoo moo affecté waale mère bi mu affecté ñu ma newoon ci turu jaxasoo boo xam ne bu ma gëmul woon yàlla aw ma woon ku mel ni Ëmma Njaay boobu ma la doon wax sànq. Mm-hmm. kon heure bii amaana mën naa doon leneen. comprendre nga waaw kon donc sama yaay demam boobu nekk na dem boo xam ne hmm. vraiment hmm. euh, duma ko fàtte ba mukk oh. <laughs> pas d'émotion tey <laughs> d'émotion tey parce que tey moom franchement tey tey dama kontaan ci indi bi ma la indi fii euh, ba noppi yaay nag moom da loo xamante ni wax dëgg neex yàlla ñuy may may may ñaan yàlla ki fi ki fi dese muy sa waajuru jigéen ngeen ñaanalal ma ko soxna Aïcha ah, na yàlla na yàlla guddal fanam wax dëgg ne yàlla ba ca kanam ndax ndey la di bàyyi nga joxal ma ko sama yaay mu koloo ko bu soobee yàlla incha allah ah, yaay booy maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay ñaanal fan wu gudd ah, di la ñaanal di la ñaanal fan wu gudd wallaahi wallaahi nañ ko ñaanal fan bu gudd di ko ñaanal yaay yëpp nag ku jàmbaare la wax dëgg neex yàlla suñu yaay kenn gënu ku jàmbaare la ku jàmbaare la mm-hmm. de de nuyu sama famille yëpp macha allah. Euh, Ousmane euh, parti boobu je pense ku ko dundul tamit yaa ngi koy craindre. Mhm, bu tey jii yaa ngi ma wax ci biir parti bi ne. ba mu la dalee ba noppi suñu borom mi ngi la mi ngi def na yoruloo moyen nga daal di dugg ci lu ñu naan sécurité ba nga duggee ci sécurité ba pare teewul sa waajur dem na kon bakkan yàllaa ko yore mhm. bi nga noppee ci sécurité c'est sûr que moment bu xaw a difficile la. Euh, da nga continuer sécurité bi wala da delluwaat ci sa aar lan moo nekkoon sa est-ce que xam nga ni Amira man aar ak sécurité dama ko mës di boole parce que aar dama ko mës di def. Mhm. Euh, maa lay wax ni euh, jamono ji may nekk doole mbooloo ba fi jógee dem naa fi Saint-Louis. Mhm. dëkk fa parce que def naa fa trois ans ci benn bale bu ñu naan ningi nànka ñuy joué ci hôtel yi waaw parce que boobu yàlla def na ni maa ngi amoon fi sama néeg. daan sama petit frère dëkk fi may fay sama néeg parce que spectacle yooyu ma doon def jour guddi gi rek spectacle bu ne 4000 laa doon am. Hmm. te dina am deux spectacles par nuit. yàlla dogal ma dem ba je me suis imposé ba cracheur de feu ma mujj ko di ko fa def. Hmm. te keneen a ko doon def tardé ñu war a jouer ji ñëwul ñu ne kan moo ko war a def man man leen man gan gi. ju boobu ma ko defee laa continuer di ko def sama cachet gën a yokk loolu bokkoon na ci li ma daan yëkkati di ko yónnee. sama sama waajur pour wax la ne la maanaam théâtre mosuma ko bàyyi. Mhm. bu ma amee temps libre damay dem def ko bu ma liggéeyee sécurité yi am na ci jour repos yoo xam ne damay dem defi ji sama théâtre d'accord euh, kon su ma la déggee théâtre yaa ngi koy dund ba tey. ba léegi chaque jour. d'accord euh, dañuy faral di gis la majeure partie ci ñi nga xam ne dañoo dañoo tàmbali benn métier. mais suñ borom taw feexalu leen torop torop ñu ñu mën a yeggale métier bi mm-hmm. dañuy convertir ci dara mm-hmm. ñii dañuy nekk chef d'entreprise mm-hmm. ñii nekk ci beneen affaire sa conversion yow lan la waaw man sama conversion nee na euh, tey yàlla dogal ni à travers la sécurité ak expérience bi ma ci am jóge ci fa ma tolloon di jóg ba tey ji yàlla dogal na maa ministère des finances donc ah yor waaw maa ngi ministère des direction de la changé kii bi yow la direction de la réglementation et de def ko def ko kii nu mu tudd documentaire waaw waaw mën na ko def documentaire euh, régie changé leen kii bi def leen ko documentaire ndax lii doontul yow la kan voilà de mm-hmm. de de de d'un euh, mm-hmm. am sa CFE euh, jóge fa jàngi électricité mm-hmm. jóge fa def def théâtre jóge fa boole théâtre ak sécurité. waaw et euh, pour euh, non cracheur de feu et tout ce qui qui va avec l'art mm. pour ensuite euh, jeexalee ci ci ci ci ci ci ministère quoi. waaw instant moom maay ministère mais nag ba léegi sécurité laa laa laa gën laay suivre parce que li ñu naan looy def lu bu yàggee nga am ci nga am ci xam-xam bu yàggee tamit nga te man dama mës nekk leader ah. te li naan. artiste moom. man daa lu may captivé ci yow. lu mu bëgg a incarné da koy incarné. da nga da nga wël sa bopp. ah non mais ba ma musaan a gis. mais ma daf ma kii loolu sàcc naa ko. Hmm, ah jëla ah jëla il va falloir que mooy bi nga xam ne euh, ba mu yóbbu woon ci hôpital def ma docteur nii boo ñëwee nii ba ma xoolee da ngay faju waaw <laughs> dama may benn kii benn benn séquence bu ndaw ngir yàlla. ah baax na nañ dem rek. <laughs> léegi léegi léegi euh, parce que région bi ñu ngi laa ma euh, cinq minutes moo ñu dese. balaa balaa ah, cinq minutes moo des. alhamdulilah ba temps bi gaaw na. waaw loolu la du ñàkk yow il faut que ñu am mais quand même euh, comme ni nga ko waxee noonu c'est-à-dire que xam nga dama am benn concept. Mhm. parce que dama ne le théâtre ne se résume pas à la télévision. Mhm. donc environnement bi tamit nekk un environnement vraiment. Mhm. mu doy waar lool. insalubrité bi ci mbedd mi. man maay artiste bi nga xam ne maa ñëw mbalit mi. Mm-hmm. di ci sensibiliser population yi pour wax la ne la sama famille sax dañu comprendre. Mm-hmm. mbalit mi ma yenu noonu. ñu bari nag yaakaar nañ ni kii est-ce que amul problème wala kii am na maire yoo xam sax ma leen rombee sol costume sax dañ naan est-ce que du waa moo fa soloon mbalit mi mais euh, mooy li ma la wax ne la damay changer en fonction. ci activité yi may nekk. Mm-hmm. donc mbalit moom it bi ma ko yenoo dama ci bëggoon rek choquer population yi. pour wa leen leen ni sama jëmm ji ni mu mel. noonu la mbedd mi mel te mbedd mbalit mi ci kër yi la jóge mhm. génn ci mbedd mi kon éducation environnementale doon na lu ñu war a waxtaane ci biir kër yi mhm. yaay yi ñoo daan toog ci biir kër yi di ko former seeni doom mais tey ji jigéen ñi jug nañ uti ji lu ñu am jànq ji la ñuy bàyyi ak mbalit mi ak xale yi ndax gis nga mbalit mu ñu bàyyi ci kër maladie yi mën joxe ak yu bari kon donc système de tri war nañ xam ni ceeb bii fii la jëm lii fii la jëm lii fii la jëm. parce que Sénégal amuñu boobu éducation ñun daal doma daabe yëpp suñu mbalit moom bu fa defee deux jours sax di xeeñ parce que nit ñi jaxasee mbalit la mais mbalit dañ koo di départager parce que am na ci loo xam ne lu ñuy récupérer waat parce que ñu ordure mbalit mu dëgër ordure or bu dëgër la booy génne ci mbalit boo seexloo doo ko jël. Mhm. te mbalit moomu noonu tey mën nañ cee créer def ci ay œuvre parce que boo xoolee tey ci wàllu sensibilisation boobu may def tey dem naa bay def la création daaw mois de mai ñu ngoon ci benn festival bu mag bu tudd Super Mbalit festival ay allemand ñëw fi ma amoon un partenaire allemand pour mm. Kadio ñu liggéey création internationale ba fashion week bi nga xam moo amoon daaw au niveau d'Allemagne man défilé naa ci kaw seen te ci saaku pompiteer bii nii ak yeneen œuvre d'art yoo xam maa ko liggéeyandoo allemand bi moom lañ fa exposé te moom sax dafa war a ñëw nii mois de mai. pour suñu deuxième création. donc pour wax la ni la déguisement boobu maa ngi ko tuddee jeeg bu baax la femme exemplaire waaw méthode bi CCC communication pour un changement de comportement c'est-à-dire pour wax sénégalais yi ni leen artistes comédiens yi nañu dem ci op hôpital yi jouer lu mel ni dialyse jouer lu mel ni euh, yeneen feebar yi. parce que am na feebar yu bari yoo xam ne tey war nañ ko mën a jàng dem gëstu ko xam solution yi. xam fa lañ ko mën a jaar du noonu mais bu fekkee dañoo bëgg a vocaliser wu toujours rek ci comédie bi dëgg la comédie bi am na solo comédie bi neex na man tey rek ma la comédie loolu nga ne déedéet. ah waaw dafa nangoo ma de. mais mais loolu duma ko nangu mais sama gars na suñu une minute yii nii ñu ah. nii nii nii nii foo jaar jox ma benn jox ma benn yow tamit nag xanaa dooma dooma dooma bàyyee noonu waaw xam nga liñ naan liñ naan liñ naan euh, boo nekkee un acteur un vrai acteur mm-hmm. bu lu joué loo jigéen sa da koy joué. Hmm. man sama yaram lépp a ci. man lépp loo ma bëgg a loo boo ma nee joué ko léegi léegi damay soppaliku léegi def ko. léegi léegi man dama feebar léegi doonal docteur ci saa si. ah mais mademoiselle comment tu vas. ça bien ma yaa ngi ci jàmm. mais euh, sama bopp bi je pense que j'ai des. Euh, mais doo leen mu sóoru mais hmm. <laughs> dee leen mu sóoru mais jigéen bu musóoruwul mais mais day jur mu day jur musiba mett bopp yëpp mais ñàkk musóoru rek la. on arrête. <laughs> on arrête mais ça va c'est bon. <laughs> mais j'arrête voilà donc noonu la demee. <laughs> eh Ousmane kontaan nañu. ñu ngi lay bëggee bu baax sa mot voilà donc di hmm. sant yàlla di kontaan trop Amira ci toog ak yow. Hmm. temps bi xat na trop te xam naa li fees di li fees ci cin li euh, li naa li duuf ci nag bi. xajul ci cin li mais euh, li ñu mën a wax bari na. mais hmm. di sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm sama soxna. waaw ndax euh, Maguette Sow ak yaayam Boutour Thiam samay sœur samay frère toute ma famille muy nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ma sama soxna dafa ma jàppale ba pare tekki nekk sama xarit ba pare ñu bari sax nee nañ ma damaa niroog moom waaw mu nekk jigéen ju mën góor ma nopp ko torop nag bëgg ko torop waaw di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam xawaayam parce que tamit ñoom ñoo tax ba bu ñu génnee suñu xel dal tey ji man bu ma jooyulee yaay rek parce que dama am jabar ju baax bu ma jooyulee yaay parce que dama am goro bu baax. waaw te loolu ma ci gërëm goro yëpp ni képp koo xam mën ngaa jàppale sa doom ci ki muy sëyal mu gën a mën a oyof parce que dañu nekk ci réew moo xam ne nii góor matalewul lépp. Mhm. te kon jigéen ñi it yaakaar naa ni ñoom it bu ñu ci teggee seen loxo rek day doy waar. te ñu gën a muñ nag te xam ne àddina moom dara yombul di wax sénégalais yi nii am nañ nguur gu bees. mënuñu ñàkk cee wax balaa moo jeex. Mhm. di wax ni man dama ne woon Ousmane Sonko. Pastef. P A e mooy parti bi ànd ak P mooy Pastef A mooy ànd ak S mooy settali T mooy taataan E mooy éeney F mooy fàggandiku. parti bi ànd ak settali tey taataan éeney fàggandiku. ñun sénégalais yi nañu may gars yi temps. ànd ak ñoom te xam ne Sénégal sonn nañu liggéey nañu ba jëlee fi li fi newoon di leen gërëm nag di leen sant ñoom it. waaye ñun sénégalais yi nañu xam ni ñun ñoo mën a Mm-hmm. nañu jóg takk suñu ndikk bàyyi toogaayu mbedd mi. Mm-hmm. bàyyi taxawaalu bi. bàyyi mm-hmm. doroge bi bàyyi leneen ak leneen lu ñu mën a yàqal. ñu takk suñu ndikk xam ne réew mi ñoo ko mën doxal réew mi Sénégal dafa bari ndaw. dañu alhamdulilah macha allah catawuñu xale yi ndaw yi bari nañu man sama doom rek am na vingt ans 2003 la juddu. xale yooyu noonu tamit tey jii nii bu ñu leen toppatawul dugal leen ci formation yi boole leen ci je pense que nii waaw. loolu daal vraiment maa ngi koy yokku sénégalais yi ñu jóg jàppale gouvernement bi ñoom it ñu xam ni priorité bi mooy sénégalais yi sonn nañ te réew mi war nañ ko redresser mais un esprit sain dans un corps sain. Mm-hmm. mais un corps sain dans un environnement sain. xel mu sell ci yaram bu sell waaye yaram bu sell ci dëkk waaye bu sell. kontaan nañ. maa ngi bëggee ñëpp kontaan nañ lool lool lool lool Ousmane. ah moom sama doom la sama sama sama xarit la. macha allah euh, maa ngi remercier déjà euh, déjà di. Euh, Khadija ñu gën koo xamee les euh, les délices de Dige. Mhm. ah toggukat bu mag boobu. Ah, sama sama sama ak man pay laa. waaw mais kan moo la ñawal. laay kii sama rakk la. ah man sama rakk la. waaw soxna Asta Walo Mbacke maa ngi lay siyaar waaw sama rakk bopp la. di caaraat suma wajuru jigéen di ko ñaanal fan wu gudd mm, di caar bébé Fall di sama famille yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn maay caar ñëpp macha allah di caar waa di gërëm ak sant sama sama sama sama ginnaaw caméra yi xam nga dañoo important ah Seck Massamba kontaan naa si yéen dégg naa ci yéen trop trop trop macha allah ah, mbokk yi lañ leen indiloon seen émission yow la kan ñoo ngi leen ñaan ngeen xaar ñu ci yeneen yeneen émission ak yeneen invité asalaamaaleykum